def nag ñu am cofeel bu yàgg boo xam ne dañ ko am ci suñu sëriñ Seydi Mawlaay Cheikh Abdoul Hamid Sarr ñu eh, cofeel goo xam ne xëy na cofeel googu lañ topp si wet bi tey eh, loolu lépp nag maanaam ngërëm la waaye ngërëm la di tàmbalee ci moom ndax ci sababam la lu bëri leeree mm-hmm. eh, loolu nag cofeel la buy nekk ci xol xol nag bu ca dara day jafe mën a génnee li ci xol bi expliquer ko ba mu leer ci ki mu jàkkaarloo loolu tuddee woy cheru mm-hmm. maanaam yëg-yëg la bu nit ki di yëg ci xarañteg yàlla nag maanaam defar ci ay baat mm-hmm. ci làkk mm-hmm. ñu mën caa génnee li ci xol mm-hmm. am nuñ koy jaaralee pour yow yëg-yëg boobu mu mën a agsi ci yow ci niñ ko bëggee amaana nag léeg-léeg yëg-yëg dana rëy rëy goo xam ne pour mu agsi ci yaw baat yi day xaw a jaxasoo ndax langue léeg am na niveau boo xam ne eh, bu fa bu yëg-yëg bu fa tollee eh, baat day tuuti pour mën a expliquer affaire bi. jàpp nañ ne àgg nañ foofu ci ci ci góor gi. Mm-hmm. ci wàll woowu. Mm-hmm. ndax lu bëree bëri. Mm-hmm. dafa saafarawu ci suñuy mbir. te moom muy sabab bi tey gisuñu gisuñu ko. te loolu nag moom mooy cofeel dëgg-dëgg. bi sëñ Mouhamed doon waxtaan. Mouhamed Diop moo tax nag ma amoon yéene. Mhm. waaye sax man mën naa ko bu yàgg waaye mosuma way nit. Mhm. ndax toujours rek da nga naan du ko jar du ko jar. Mhm. waaye tey nag jàpp naa ne. jar na ko. Eh, ma way ko nag way woo xam ne. xam naa ne moom moo ñuy baal. ci fi ñu ko teg te fekk mu weesu foofu. ma wax ne dawaa'i shawqi. min aqwa dawaa'i. لمدح القرم والأسد الشجاع ñun ñi cofeel moo ñu tënk mhm. wooñu mhm. te cofeel nag moo ëpp doole ci li woo nit mhm. pour mu way góor gu mag gi di gaynde gu jàmbaare gi gaynde sax damay xalaat ne rek xëy na am na gaynde yooyu ragal ma ne loola su amee itam bii gaynde moom gaynde yu ñeme yi la bokk xamidil wasfi بان العز والمجد للإسلام نافي الابتداع كو رفت أي ملوكان لا ينكو منا تقيه من حميد الوصف باني المجد والعز للاسلام نافي الابتداع موي غور كيغا خامني دا فا رافيت اي جيكو yuñ ko mën a taggee tem bëri te jikko yëpp boo ko teppee day teeree ci njool màkka mi nga xam ne mooy min kulli wasfin hamidin haza afala tafdilin kii may wax nag mooy xadiimul xadratayni wa man tasadda li ahli nukri mardiyul masaayi mooy ki nga xam ne mooy liggéeyal ñaari xadra yëpp di yonent bi ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mu gaddu drapeau bi l'islam bi ak bu tariqa bi moy ki nga xamne mo kar manam tëru ñi nga xamne ñoy weddi jaamaarloo ak ñom ki moy mardiyul masa'i ki nga xamne manam jaar-jaaram yep ak jëfëm yi yep dafa dafa nek lu yalla gërëm moy wahidun nasji ذو خلق رفيع غزير العلم واسع الاطلاع mooy kii nga xam ne dafa doomu aadama dañ leen ràbb ñu nekk ay façon waaye moom façon bi mu doon nag dafa raar dafa nekk benn façon boo dafa mel moom rek mooy kenn ñeneen ñi nekk yeneeni façon yi yeneeni façon yi doomu aadama waxiidu nas ji ndax moom day wax ne ndax sénégalais nga mu ne ah bu dee ci national tegi way bu de jëf yi duma sénégalais oh, waaw mhm. abiyun mhm. qul salil ubat daymin جليل القدر ذو فيض بعاي ما نام اب بان كات لا تي دغ تخ وايي بوكو توبي تام داغي فك ني اي تي مامام رك لاي جوغي مانام دومي بان كات يي لاي دون mooy ki nga xam ne dayoom ca yàlla dafa kawe mën naa nëbbu ci ñu bari borom faydu bu yaatu la boo xam ne dafa sotteeku ñëpp ñëpp jariñu ci ndax li jóge ci ana Ahmad te muy tariqa bi ñu koy tasaare di ko leeral te leeral ga teg ci dëgg ak na ko Cheikh bëgge moom def na ci lu yaatu loo xam ne ñooña mu gindi mënuñu koo gis ci àdduna loolu mooy faydu bu yaatu mm-hmm. bihi mm-hmm. siina tariqu an iftirain mm-hmm. wa xulfi wa xulfi sharci walkadibi almudaaci mooy ki nga xam ne ci moom la yàlla jaare aar tariqa bii ci lépp luy sos wuñ ko war a sosal wala luñ luñ ci tuumaal wala luñ ko attaqué waaye moo aar tariqa bi itam ci lu wuuteeg sharia luñ ci bëgg a dugal te bokk ci moo ko aar itam ci fen yi ñuy jàllale mu mu muy law di dem te fekk du dëgg moo ko dagg fa abdun kasmihi lakin li rabbin xamidin waxidin samadin mutaaci ab jaam la kat ndax abdou la tudd waaye nag moom njaamam gi ci kenn rek la ko jëmale nekk gor ci keneen ku mënti doon mooy mu jëmale ko ci yàlla mi nga xam ne mooy alxamid yàlla mi nga xam ne mooy kenn yàlla mi nga xam ne mooy ki ñëpp di topp kii nag karimun asluhu cosaanam lu tedd la akrim bihi min naqiyil qalbi min zeygi tibaa'i doomu aadama yi ci ñun ni ñuy dundee ci société yi mm-hmm. am nay jikko yoo xam ne société yi ñoo ñu ko teg mm-hmm. Mm-hmm. sunu xol yi yàqu te fekk bëgguñu woon a mel noonu waaye amuñu ci pexe ku bëri xam day xam dëgg mais du ko mën a wax parce que am na lu muy sóor kooku bañu ta wax dëgg wante société bi moo togg ci moom jikko yoo xam ne dafay nekk naa fekk par force moom nag mooy ki nga xam ne xolam dafa sell yàlla génnee ci jikko jikko yu ndaw yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne sóoraaleeg boo waxé dañ lay bañ ak bo waxé deug do fi mëna nek ak kuko wax ñu ray laak yoy mom yu xol bi yàlla daf ko sétal ci lool foko ko fekk rek yazubbu an shariati kull ifkin wa yufni umruhu fi dha manam foko ko da fay ar sharia bi ci lépp luy fenn ci loolu nag la jeexal dundam mm-hmm. waaye da nga koy fekk tamit mu nekk wadaa'i mm-hmm. yaduuru ma alxaqiqati xaytu daarat mm-hmm. yazuudu an ittijaani axabtidaa'i da nga koy fekk mu nekk wootekat boo xam ne fu dëgg nekk fa la jëm moom wër-wërloom mooy day wër-wërloog dëgg fa dëgg jëm rek fa lay dem. même bu fekkee ne moo fay wéeti. même bu fekkee ne du fa fekk ay nit moom mu toog fa moom ca dëgg ga. waye foko fekke itam da fay sayyidi Cheikh ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu mom mo koy xàjjil taxaw ci kanamam di xàjji képp ku nara sos ci mbir mi ba do jege ci tariqa yudafi'u an harim ash-shaykh dawman yajubu li ajlihi kull al-biqa'i foko fek rek harimu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ëttam lay jabanté rek ko ken du ken kenn du ko ruur kenn du ko dugg loolu nag yamalewu ko ci barab bim dëkk waye daf ko janal fu nek mu fay dem ngir yaatal deug gog ngir aré fa tariqa bi ci fu nek ترى عبد الحميد يفيد درا يصب العلم كالسيل التراعي من دغاي Cheikh Abdou muy sotteeku ay wurusi or ci xam-xam buy sotti xam-xam dafay mel ni arab lu muy tuddee saylu taraayi maanaam euh, kaw montagne bi su ci ndox mu bëri wàccee fan lay nar a feesali ji maanaam xurwa rek moom nag dafa nekk ci kaw di sotti ñun ñu nekk ci suuf ñun ñëpp ciy lab ci xam-xam bu bari boobu يعلم جاهلا يهدي الحيارى يبين المشكلات بطول باعي فوكو فك داي خمال ويرير ني وايتام ني گلم سوسيتي مولين گلم لو گم لو لين اي خاج خاج اي باتش باتش ñu gëlëm nag ci biir loolu ana dëgg gi fu mu féete moom moo leen di won yoon li lënt ci xam-xam te boroom xam-xam yi gàc ci moom ci guddug alliwaam la ko leerale bam leer nañ foo ko fekk itam wa amira taati l mawla wa naahin li isyaanin li namana min dayaayi foo ko fekk rek day digle li yàlla digle te mooy dëgg te mooy lu baax topp yon topp yàlla ak yonent waaye itam foo ko fekk day tere loo xam ne mooy la loolu lim ci bëgg rek du moom moom mu defaru de ñun kay pour ñu bañ a sànku ji kese yaqulu alxaqa foo ko fekk yafdaxu kulla xabbin xasiisi nafsi min abna arraayi day wax dëgg saa su nekk waaye itam gépp koo xam ne ku doye di nga ba pare taxaw temm ngir yàq diine ji moom moo lay wane ba ñépp xam la mooy weer waaye du weer as gor ak ku tege ci dëgg maanaam ku nar yàq rek moytu leen foo ko fekk rek taraahu min altawaaduci xaasira rasi layna aljanbi za qalbin samaai foo ko fekk rek ci tawaadu am bopp bi dara du ca nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. yi ci kilifteef da ngay. nga ciy teg dara. Mm-hmm. pour sa kilifteef mat. moom nag ci wàccee boppam nag. la wàccee mbaxane bi ci kaw bopp bi. foo ko fekk rek muy koo xam ne. ku nooyu wet la. Euh, ashiddaau alal kufaari. ruhamaau baynahum maanaam. tar na de mhm. waante nag ku nooy wet la ci ñi nekk ci dëgg mhm. waaw boo ñëwee nam lay teraleeg mhm. na muy waxeek yow ak wàccuwaay ba mu lay teg ak fa mu lay yëkkati ak na muy waxeeg yow danga naan est-ce que kii sax moo doon wax lii waaye nag lële nag alal ku faari tar gi ci ñi nekkul ci dëgg woyof geeg wàcc gi ci ñi nekk ci yoon foko fek rek xol bi xol ku yewu la ci xol ak xel abal ashbali ñu jéem nak jema a jàkkaarloog mom wax tuti ju sunu yëg-yëg abal ashbali hurrira minka jiilun yakadu yakunu muftarasa sibai yow mi nga xamne yow yaay bàyyi gaynde yu ndaw yi yow yaay gaynde gu mag gi nga xam ne ñi fiy fippu di woote ci dëgg yow yaay seen baay ci yow nag lañu libéré génération boo xam ne tuuti mu nekk rëbbum gaynde yi nekk ci àll bi tuuti gaa yi leen jëfandikoo leen yow yaa leen libéré yaa yeewi askan يا عبد الحميد حماك ربي من الأعداء محفوظ الرباعي يا شيخ عبد لينيان يالا يالا آر لا لب لوي نون نغا نيك كو خان دو ياو ياي آر واي سا ات كارانغك يالا وركو لقد أسفرت وجه الحق شمسا بدت للناس ناشرة ناشرة الشعاع dëgg dafa mel nañ koo muuroon mhm. aw këyit wala lëmas ko daal am mbàjj mhm. ba dëgg ngi fi gaa mhm. waaye gisuñu ko nag gis ko yombul yow nag yaa dem ba ci dëgg nga mbàjj miñ ko muuroon nga muri ko ba dëgg nag mujj nekk aw jant woo xam ne eh, ceeñeere mi daal day dal doomu aadama yépp fi mu toll léegi nag ku nekk lu mu doon wax ca wax bu jëkk ba te mu diisoon tey nag dafa woyof ci yow ah, lii mooy li am te loolu waxon nañ ko bu yag kon nak jazakallahu anna kull khairin amin wa afiyatin fa yazdaada intifaa'i yal yàlla fay la ngeen ji fay yokula la jàmm ak tawfiq loolu nak bu amé sunu jëriñu moy yok فلا نخشى الضلال وأنت فينا ترينا الحق مكشوف القناع du ñu mhm. yaakaar mukk ne bis dana ñëw ñu réer mhm. ñu réerati réeroon nañ feeñ mhm. waaw léegi nag ñu réerati moom yaakaaruñ ko nag waaye féeg yaa ngi fi kon nag sa nekk fi am na njariñ boo nekkee nag yaay wone dëgg muri kiiraay gi nga xam ne moom lañ ko muuroon fa anta rimaaxu xisbi cheikhi ifhaamu munkirihi wa murhifatu tulaayi ah, waaw yow nag ah. <laughs> yow yaay رماح حزب حزب مانام شانا احمد تجاني بيكو آه. نوني سونغي آه. واخ سي طريقام آه. دا ام تيري يجوك كي تود رماح حزب الرحيم xidhi baa xisbi rahim ala nuxuuri xisbi rajim am beneen bu ñëw moom itam song tudd boog tuddee boppam ifhaamul munkiril jaani am keneen ku ñëw tuddee boppam aljuyusu tulla bil murhafatil qutta keneen daat jóge fee daat tuddee boppam aljawaabul muskit keneen tuddee boppam adbul yamaani keneen tuddee boppam alxijaaratul maqtiya keneen ku tuddee boppam aljeysul kafiil loolu mooy yow maanaam yow yaa nekk téere yooyu yëpp téere yooyu yëpp nga xam ne da doon défendre tariqa bi léegi nag yow yow yaa mujj nekk jëmm ji nga xam ne téere yooyu yëpp yow yow la yaa yaa pré représenté téere yooyu yëpp fa anta rimaahu xisbi cheikhi ifhaamu munkirihi wa murhifatu tulaai jawaabun muskitun adbun yamaanin xijaaratu maqtihi jeysu riqaayi يا رماح يو يا رماح يا افهام منكر بوشي الحاج مالك رماح بوشي عمر يا يا مرهفة الطلاع بو خليفة يا جواب المسكت بو كنسوسي وايتم يو يا عطب اليماني بو احمد بن بدي يا حجارة مقتية بو سكيري يا يا جيش الرقاعي جيش الكفيل بو سيدي صغير التشيتي كون فيا رب البرية جاز عبد الحميد الخير ما ناجاك داعي yow yàlla mu lay ñaan nga fayal ñu Cheikh Abdou ngën jaa rëy fay fiig fay gi nag waxuñu fay léegi fiig nit a ngi lay woo di la ñaan rek ñun ñun ñaan googu itam ñu ngi koy ñaan fay gi di yokk saa su nekk wa tawil umrahu waxfadhu min kaydi kulli alxalqi sunhu min alxidaa'i yàlla nga guddal aw fanam dat koy ar ci fexey lépp luy mindeef min sharri ma khalaqa sunhu min al alxidaa'i yal na nga ko musal ci ay wor wa sirru al ilmi yabqa fi banihi yal na nga def secret xam-xam muy des ci ak njabotam njabotam nak maa ngi ci djublu min ibnin saadiqin wa axi tibaayi doom ju deugal top bayam ak ku jóge ci àll ba ñëw nga doy ko mu aju ci yow fala madxi loolu nag faaw ñu leeral ko ci njeextal li fala madxi lahu yulihi qadran walakin minhu shicri zurtifaaci maanaam du caagéene way giñ koy way moo koy yëkkati moom ab daraja waaye ñun sunu way gi moo yëkkati ko ci way giñ ko way moom allah salaamu aleykum wa rahmatullah amoon na beneen nag dégg ngeen ko waaw الحمد لله رب العالمين اذا وقت الدليم والامون يا اخوه غير الدنيا بغي غير الحمد لله رب العالمين امنا امنا وي جار